Euh, tey nag suñu invité de la rédaction euh, Mamadou Dieye lay wuyoo moom nag journaliste euh, sportif la ci groupe Walfadjri ñu fas yéene waxtaan ak moom rek lépp loo ne dafa jëm ci wàllum mondial bi surtout participation équipe nationale bu Sénégal ci boobu le mondial ñu dooree ba fi ñu yegg si fii balaa may sori kon ma bàyyi ko mu leen teg mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu. jërëjëf Koungheul maa ngi lay fay. maa ngi nuyu tamit bu baax suñu mbokk internet yu ñuy seetaan à travers site bu baax bi di euh, seneinfo.net di ñaan rek lépp loo xamante ne ñu ngi ko fi wax yàlla doon loo xamante ne day euh, laaj bi njëkk jee rek euh, nekk nii yaakaar naa mondial a mag Sénégal bokk ci incha allah ñu ngi waajal match boo xam ne capital la yaakaar naa dinañ si ñëwaat dama lay laaj d'abord ana nan nga gisee. prestation suñu gaynde yi ñu tàmbalee fi ñu toll nii. waaw prestation bu baax la mën nañ ko wax parce que ñaar ñaari euh, sorties lañ dafa ko ci première sortie bi war nañ benn match bu am solo mais bi lañ boo xoolee contenu bi donte am nañ defet da ngay xam ne contenu bi euh, contenu bu am am solo la. bu ñu ko continuer am lu weesu loo xamante ne amuñu ko woon mooy euh, victoire beneen match bi contre Qatar xoolee moom mooy c'est la plus faible équipe de la poule. ah moo taxit euh, victoire bi ñu ci am nekkul benn victoire boo xamante ne lu si lu si bëri la quoi victoire boo xamante ne ñëpp ñu ngi ko doon xaarandi parce que Qatar ak euh, Sénégal boo koy comparé Sénégal daf ko jiitu euh, lu sori ci football donte Qatar en deux mille dix lu ñuy wax Coupe d'Asie mm-hmm. mais teewul Sénégal moom moo ko xaw a ëpp expérience si wàllu Coupe du Monde ndax suñu ñetteelu Coupe du Monde lañ nekk alors Qatar bi mooy première fois te première sax. mooy dafa nekk pays organisateur moom moo tax mu organisé mais li ñu mën a wax daal en tout cas dans l'ensemble mooy Sénégal waneegum na jamono ji mm-hmm. benn xar kanam boo xamante ne dalal na xel. a mm-hmm. bokk na ci ci dernier euh, match bi ndax ñu bëri dañ naan euh, euh, seen donte gagné nañ par exemple li ñu waroon joué des na est que yow waaw bon li loolu joué des na mais buñ euh, la ñu wax ne foofu ñuy joué tamit un peu pression lañ doon xaw a joué parce que Sénégal dafa nekkoon dans une situation inconfortable mhm. mooy defet bi nga xamante ne dina ko contre Hollande beneen euh, pays bi di pays Équateur tamit daal di dóoroon euh, équipe bi nga xamante moom mooy Qatar deux buts donc ci pour boobu Sénégal daanaka daare bala nekkoon parce que moom ak Qatar ñoom ñoo tolloon ay mhm. donc vu que ne moom moom moo nekk mais contenu bi moo rek comme li ma waxoon sànq rek amoon na solo peut être luñ ci doon ñàmb rek mooy bii bi nga xamante ne encaissé na ko parce que bii boobu ñu encaissé mën nañoo indil moo tax euh, dañ koo jël euh, que Sénégal bu mënoon na ko dóor espoir boo xamante ne moom du encaissé parce que boo xoolee boo xoolee 2018 Sénégal benn action bu ndaw boo ko doon muy affaire carte moom ak ay points léegi il fallait pour yu mag yi yëpp dañoo dem ci carton yi ñu xool Sénégal bi moo ko ëppee carton. après de manière disciplinaire ñu bàyyi Japon moom moo tax yenn euh, détails yi dañ ko war di éviter. tactique Aliou Cissé noo ko gisee ak ni muy defee nga xam ne moom mooy ay remplacement ak yooyu. Sénégal yi bëri di ko di ko critiqué donc Sénégal nag nee nañ nga gisee xam ne moom mooy Aliou Cissé. waaw d' dañuy wax 17000 la ñi nga xamante dañuy wax seen avis parce que football moom moo toll foofu. ah 17000 habitants yooyu ñoom ñooy jënd maillot ñoom ñooy jooy am na xam ne ci tas seen i terrain am na ñoo xam ne duñu añ duñu reer fay ñu man. Hmm. mais Sénégal lañ dugg moom moo tax. moo tax nag képp ku ci wax xalaatam ne dañoo jàpp ne xalaat bu lu valable la doon doon te entrepreneur bi donc sur le plan tactique bu Aliou Cissé moom ñu wax rek chaque fois day am ay parce que football moom compétition dañuy wax on choisit les meilleurs joueurs du moment léegi nag euh, boo xoolee Sénégal les meilleurs joueurs du moment quelques ñoo yi parce que Aliou Cissé boolewu leen woon ci ADN moom boo boo waxee day naan dafa am benn problème vertébral. Hmm. moom mooy ay euh, Edouard Mendy Kalidou Koulibaly Cheikhou Kouyaté Sadio hmm. Mané Gana Gueye Ismaïla Sarr ak Krépin Diatta hmm. ñooñu en général day gën a focaliser wu seen football bu ñu toog mën ngeen dem teg ci banc bi après nga dugal beneen yeneen jours yoo xam ne ñoom ñoo gën a baax mais am si semence bi procédé woon noonu. donc nag ñu ngi gis premier euh, match bi 4 3 3 bu def c'était bien parce que moom moo nekk benn formule boo xamante ne en général moom rek la lay lay teg mais tamit loolu woon dugal ay bi parce que dañu am ay problème moo attaquant deuxièmement bi nag mu soxla bi dafa def benn 4 4 2 teg ñaari atta ñaari attaquant muy euh, Boulaye Dia ak euh, Famara Diéry loolu moom moo tax peut être ñu dugal 3 bi ndax ñoom ñaar dugal nañ plus Bamba Dia hmm. donc tactique bu baax la léegi nag c'est à lui de voir suba incha allah contre Équateur ban tactique nga war a def pour dugal parce que le Sénégal dina am besoin. effectivement ci tactique boobu la ñuy ñëw sax ak suba euh, nee nañ euh, victoire kese obligatoire parce que kat euh, boo xoolee Hollande actuellement mu ngi ak 4 points. nga jël Équateur tamit ñu nekk 4 points donc Hollande boo gisee équipe bi muy demee moom mooy Qatar Qatar si éliminé nañ ko ba pare xëy na nag mën na jouer ak Hollande alors que Équateur mën nañoo samp match bi bu sampee match bi boobu waa Sénégal day toog day day day toog donc loolu lu ñuy dëggal la entraîneur bi léegi ba Mignosa mi ngi def conférence de presse bi ñu wax ne la victoire est impérative. Hmm. donc victoire bi moom loolu lu ñuy dëggal la quoi victoire kese moom mooy jagal équipe nationale bu Sénégal. wax nga waaw ci tactique bi tactique bi noonu nan la war a demee selon. selon waaw tactique bi mu teg les les les meilleurs jours du moment rek. comme yeneen compétition yi moom da ngay xool euh, équipe yu jour yi gën a dëgër nga teg leen parce moom mooy compétition bi comme moom takku dafa mais coupe du monde la on choisit les meilleurs bi euh, gën a mag moom la ñuy indi léegi nag coupe d'Afrique xëy na peut-être yow yaay dépassé ñeneen ci benn niveau bi ndax Sénégal boo xoolee ñu doon dajale ay Zimbabwe yi ay Uganda boo xoolee benn équipe doomu moom moo ci xawoon ñetti moom muy euh, Burkina Faso avant nga jël ci final bi alors que coupe du monde loolu amu coupe du monde continent boo jël rek par exemple ñun ñëpp dañuy nekk équipe yoo xam ne équipe yu mag a mag lañ hmm. yi nga xamante ne am na fi hmm. Allemagne moom moo kenn xaaru ko woon am na benn équipe boo xam ne tamit euh, dañ koo surprendre. Ah, Arabie Saoudite gis nga lu surprendre Argentine bi nga xamante ne boo na ci euh, des euh, l'une des équipes favorites ci coupe du monde léegi nag gis nga loolu lay demee moo tax euh, tactique bi mu war a teg moom mooy choisir les joueurs yoo xamante ne ñoom ñoo gën a xarañ ku ci mel ni Ismaël euh, Iliman Ndiaye bi nga xam ne ñu ngi koy réclamé. waaw yoon ba mu jox may ko chance ak mu xool parce que jugé wuñ ko ci match bi nga xamante ne def na ko bii passé dañ ko jugé ci performance yi nga xam ne ñu ngi koy def Angleterre Sheffield United. ñu gis ne ci dynamique bu baax la nag moom il suffit juste mu may ko confiance rek après ñu ñu bëgg xëy na dañ ko am ci moom montré na ko la fois passée moins de quinze minutes de football gis nga def na passe décisive def ay action yoo xam ne voilà changer rythme nga xamante ne jàpp nañ ne bu ñu duggee dañuy def match que am si bëri mm-hmm. euh, euh, dañuy wax seen bëgg-bëgg comme sama euh, genre mm-hmm. ba ba ba jël tey maanaam euh, en tant que ku nekk si milieu bi nekk si observateur euh, yan lan mooy sens su Sénégal tey ci coupe du monde boobu surtout soit ñu jàll étape boobu benn na jël coupe parce que boo xoolee tubaab bi tey boo demoon seen dëkk nga leen laaj euh, position Sénégal dañ koy dañuy ci ci ci favori ci favori kon cela veut am na potentialité yoo xam te ne mën na jël coupe parce que football moom ngeen moom onze day football. keneen moo toog ci maanaam. Mm. waaw léegi nag euh, entrepreneur bi moom mooy def mën na jour yi war a seen détermination ba keroog ñuy am lu bëgg mais en général wax ne moom du sori ci yenn compétition yi parce que d'une part ñoom ñooy def lu tax duñu duñu parce que dañuy xaw a ragal tubaab yi de telle sorte que dañuy demee comme ni Arabie Saoudite lu mu def bi passe contre Argentine Maroc sax waaw li nga lu mu def Belgique Belgique bokk toog na ñu yàgg-yàgg mu nekk meilleure équipe ci classement wu FIFA te bii nga jël parce que dugal na benn bi ñu bari ba mu dugal beneen bi ba pare dëgg na ko nag match bi parce que boobu ba mu jeex loolu nag day wane ne bu ñu amee seen fulla am seen jëm rek kon affaire bi mën na sori. Sénégal Maroc moom moo def boo xam ne Sénégal bi nga xamante ne actuellement moom mooy. meilleure euh, équipe africaine passé plus de 43 mois Sénégal moo nekk meilleure équipe africaine. plus parce que 3 ans loolu nga xam ne lu jafe-jafe gis nga woon à part euh, Côte d'Ivoire bi nga defoon. Mm-hmm. ak euh, tamit. deuxième ballon d'or bi di Sadio Mané doon na demee sax nekk mais day pesé bu baax si qualité yi nga xamante ne Sénégal am na ko des joueurs comme Kalidou Koulibaly des joueurs comme Bamba Dieng nga xam dañuy jouer si ay club yu mag a mag des joueurs comme Ismaïla Sarr c' est vrai que si deuxième division mu nekk mais deuxième division boobu mu nekk boo koy comparé ak championnat bu France daanaka moom moo ëpp sax niveau championnat bu France donc cela veut dire que nous avons des joueurs yoo xamante ne. Mm. am nañ potentiel pour jël ko léegi nag li si des man damay wax ne entraîneur moom moo moom moo si des pour. wane ko wane si jàppale li nga xam ne décision bi moom la revenir mais it euh, bu ñu xoolee te bëgg-bëgg Sénégal yi nga xam ne tam benn instant yéen ñi nekk expert itam c'est raisonnable mun naa dinañu si jàppale euh, lan ngay tëjee suñu waxtaan di ko tëjee ak euh, ñaan suba Sénégal mu daal di gagné parce que mën nañoo gagné c'est pas nekk loo xamante ni. c'est pas impossible waaw c'est pas impossible. donc équipe nag bu mag la ñuy dajal Équateur parce que Équateur moom kenn sóoraale ko woon ci làng bi mais ñoo na waree ne carrément xaj na si làng bi gis nañ bi bi mu wax nee na carrément ñoom donc nag match yi dañ sax parce que Équateur moom mooy équipe a organisé moom moo nekk sax moom moo gën a organisé sax équipe nationale du Sénégal waxoon na ci conférence de presse d'avant match après loolu bu waxatee ci conférence de presse d'après match kon cela veut dire que kooku luy Vangal entraîneur bu mala bu ko waxee rek c'est parce que gis na qualité kon nag euh, Sénégal di ñaan mu gagné match bu nekk nag lay doon bu ñu ñëwee yomb moom franchement dañuy wax loo xamante ne waxu caa. daanaka final la rek. waaw surtout final moom. waaw te loolu nag mënoon nañu ko éviter si match Sénégal ko am. match bu njëkk ba waaw dañ ko doon éviter. effectivement loolu sax xam naa ne dañ ko borosaale. ñu bëri nañ doon wax ne maanaam match boobu tey bi ko. bi bi ci góorgóorloo rek même ab njël bi nga fa amoon sax. waaw mën na régler tey. kon kon kon bi kat situation yi nekk waaw waaw match victoire sax xajal na. victoire sax xajal na parce que Angleterre da ko gagné par expérience. dem na benn moment dominé na match bi gis na ne joueur bi ñu ngi woon ñu ngi yéeg action yu bari na moom la mu jàpp ne match bi ñu woon na ko gagné mais à quatre-vingt-deux minutes équipe bi yéegu bouse yu deful dara yow tamit da ngay dem. da ngay dem voilà da ngay dem ba replié wu moo tax euh, Van Gaal ba mu xoolee xam ne waa Sénégal ñi ngi am confiance te ko dugal Memphis Depay xam na ne Memphis Depay ak il n'avait rien à faire sur la sur la police mais comme loolu turam day bu mag la ñu ngi Barcelone ñëpp dañu ko war a mu bu Sénégalais gis nga ba mu liggéey mu def défenseur Sénégalais commencé jàmm xaw après moom deuxième bi moom moo dóor góor bi sànni ko ci kii bi après classé daal ñu dugal kon cela veut dire que expérience la ko gagné am na yenn match yoo xamante ne boo demee bu gën a dugal après da ngay répliqué masandu match bi muy yàqaat donc defal bu ñu doon éviter moo tax bon j'espère que jàng na lu bëree bëri donc bii di ñëw ñi xam ne mën naa di sotti li ah, a euh, a baax di fàttali ne journaliste nga euh, sportif nekk ci groupe Walfadjri ko ci yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel saa su ne dinañ toog di daje kon yàggul dara beneen Thank you.